internetu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu eh, di leen ziar comme nag ni ñu koy baaxee rek di amalee saa su ne eh, xam ngeen ne Dakar Buzz moom lépp leen koy daal di indil waaye nag rawatina eh, ndaanaan yi nga xamante ni baaxoo nañu di leen dalal di waxtaan ak ñoom ci démb ak tey tey nag ndaanaan kullu fadilin la ñu dalal Mohamed macha allah comme ni ñu koy waxee rek mooy kan mooy Lamarana Diallo wala ñu ne tonton Lamarana Diallo moom la ñu dalal tey kooku nag xam naa ne xale yi am na ay benn benn ñu ko war xam waaye mag ñi moom xàmme nañu ko bu baax borom Ousmane Diop mes <laughs> maam parti boobu katakaay ni <laughs> ak yeneen ak yeneen bari na ci lu mu euh, li nga xamante ni rek def na ko fi euh, ci aaru Sénégal macha allah daan ci joué nag lu ama ama am solo euh, moom la ñu dalal tey fas yéene sekk ak moom waxtaan tonton Lama ñu ngi lay nuyu. Hmm, waaw maa ngi leen di fay Lalla maa ngi nuyu gannaaw ba ma sante yàlla julli ci yonent bi mm-hmm. di gërëm sama ñaari waajur di ñaan uh, fa ñu ne ca barsàq ñaan na leen fa yiw ak jàmm ak mbokk yañ fa fekk ak jullit yañ fa fekk ñëpp yàlla xare leen àjjana ci barke yonent bi may nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu waa Dakar Buzz di nuyu sa technicien yi uh, di nuyu Sénégal yëpp Mhm. voilà d'accord euh, euh, mu xaw a mu xaw a mu xaw a jóg tuuti mu xaw a fort bu ko defee ñu mën la euh, ñu mën la dégg rawatina internet yi nga xamante ne saa su ne comme ni ma koy waxee bu ñu dala leen daanaan rek ñoom ñooy laajte indi leen ñu diw indi leen ñu diw gën nañ koo gis baaxoo nañu saa su ne bu ñu dalalee suñu daanaan li ñuy bëgg a njëkk xam ci moom fan la juddoo fan la yaroo ak njàng mi fan la toll dégg naa nag da nga soboon booy xaar yàlla yëpp daan nga leen defal bagage papal fu tey dañoo ñëw chaque jour di di kalaame <laughs> waaw laal la man maa ngi tudd Ibrahima Mbodj. Uh-huh. Mm, maa ngi cosaanoo waalo dëkk bu ñuy wax Mbilor. Uh-huh. maa ngi juddoo nag Dakar Dakar laa juddoo fi laa yaroo waagu ñaay laa juddoo yaroo Grand Yoff xaar yàlla uh-huh. voilà ba tey ba tey fa dëkk jàng bi maa ngi bàyyee CM2 kon daal yàggoo fa yàqoo fa euh, def naa sama cycle primaire ba cm <laughs> booba temps boo defee examen euh, da nga daan mën nga am certificat d'étude mhm. te doo am entrant da ngay continuer defaat CM2 pour amaat entrant sixième mhm. wala wala boog parents yi bu dee seen moyen am na école privée daan nañu accepter pour nga def euh, cycle euh, nga def sixième secondaire mhm. avec certificat d'études jamono yooyu mais bi ma amee certificat d'étude daal laa laa bàyyi quoi mhm. lan moo waraloon lan moo waraloon ñàkk ñàkk continuer bi xel mi moo neexul doole ji moo bariwul woon du du xel mi xam nga benn instant dama dama ci bëggatul woon dara ci jàng mi euh, boobu xëy na peut-être virusu artiste bi mi ngi ñëw mhm. ci laa bàyyi def euh, menuisier métallique tout toujours aussi virus su bi commencé ñëw. menuisier bi lan nga ci defal. menuisier métallique dara <laughs> defaruma ci dara <laughs> je me jour bi ñu ma njëkkee jox euh. baguette bi ak euh, kii bi ngay suude uh-huh. pour ma commencé jàng suude bi ma ko cappee boo ko da koy def nii pour mu kii. waaw mu ne teg mais bi ma tegee. dafa kole dama daw sànni affaire bi. donc euh, pour wax la ni la. keroog nga bàyyi. non non continué naa mais après si laa bàyyi si laa dugg nag ci aar bi ci théâtre populaire. d' accord ñu des tuuti ci menuisier bi ba tey kon mënoo ci defar dara dara dara. dara ñaata nga fa def. damaa xam sax man daal ma bàyyi école. sa que à kër gi ñu taqalool euh, ma ma leen di nuyu de passage euh, parce que di nga dëkk ak nit ba ba mu doon sa mbokk. Mhm. ndax yàgg. mu Yacine Diallo maire Khadiba ñoo taxaloo woon kër. Mhm. doomam bu jigéen di Yacine jàll mu koy nuyu de passage di ak boroom këram Mamadou Ndiaye euh, yal na ko yàlla yërëm moom moo yoroon atelier menuisier métallique ak ay mhm. doomam ak euh, menuisier euh, aluminium la boole woon donc ci lañ ma jël yóbbu ma foofu ma fay jàng métier. d'accord voilà. bi nga xam ne def nga fa 10 ans te mënoo defar dara. bi nga génnee ci lan nga ban métier nga. non non parce que dama dama génn foofu rek à ñu amoon euh, benn maire bu ñuy wax ndey Kumba Ndiaye koñ bi nga xam ni fa la ñu yaroo di fa daan fa fréquenté mm-hmm. sama rakku papa dëkkoon fa moom it maire Ndeye Kumba yàlla na ko yàlla yërëm vacances dafa jot mu ne buggul. xale yi di doxi dem géej mu créé troupe théâtrale boo xam ne pendant les vacances dañu ñu occuper xale ya sa quartier ba te comme man samay copin ñenn ñi dañ ma xamee woon ci fu ma toog comédie rek nit ñi reetaan si lañ ma informé troupe bi troupe bi amuloon góor jigéen rek la woon ci laa dem nekk fa ñu jox ma rôle paa ñu joué sama grand frère bi ñuy wax Pathé Mbodj moo nekkoon metteur en scène bi moo ñu yoroon ñuy répété bi ñuy répété ba année scolaire bëgg école bëgg tijji mhm. ci lañu ñu spectacle bi bi ñu defee spectacle bi nag mu am réussite vraiment mhm. nit ñi apprécier bu baax ci la nit ñi ne ma yow mën nga dem defi théâtre loolu ban année moment yooyu après ci laa doon def art aussi décoration parce que man dama def ñetti art yi mooy théâtre peinture musique. ah def nga musique. jàng naa musique au conservatoire Douta Seck def naa fa cinq ans. mais comme ñii nekk ci ginnaaw rek wala ñiy woy. no man instrument rek laa doon def. ok daaw mooy instrument vent laa doon def. ok am euh, bi ñu defee spectacle bi ma nekkoon foyer Grand Yoff ku ñuy wax Sidibé benn malien bu ñëwoon installé Sénégal nekk décorateur ma mhm. doon liggéey ci moom doon apprenteem ci laa ci la amoon festival foofu ci euh, grand ci foyer bi mhm. sama grand frère boobu may wax jiite ko ñu doon décoré bi ñuy waxtaan ki ma dendal Mbasu Mbay yoroon troupe xale bay Faal au niveau de Arafat mhm. ñuy waxtaan ba ñu dugg ci domaine boobu man ko man damaa bëgg rejoindre benn troupe mu ne ma man yor naa troupe dama bëgg sax ay élément looloo ma dugal xale Baay Faal mm-hmm. ma nekk fa théâtre populaire def fa un an et demi ñu mel ni ku mel ni Demba Kayta Mañam Fay ñooñu ñëw ma yóbbu Daaray Kocc mm-hmm. ak ñoom Jibi Njaay ak ñoom Badda ci Arafat toujours ñu créer troupe wurus wi doon liggéey ak waa Enda bu Grand Yoff ak benn tubaab bu ñuy wax muris amoon projet. ma ma bàyyi foofu toujours sama ambition parce que man dama ni benn affaire bi comme bëgg naa ko. Mm-hmm. il faut ma dem du ma rester ci benn théâtre mm-hmm. mais sama ambition c'était ma dem Sorano wala Daaray que jamono yooyu ñoom ñoo fi gënoon mag. ak jamonoy tey. Mm-hmm. parce que bëgg naa affaire bi il faut ma dem. Euh, ma dem wurus wi nekk fa toujours dans le populaire ñoom dem ba Kayta ak Mañam bi ñu gisee talent bi nga xam ni yàlla may na ma ko ci lañ ñu ma dañ lay yóbbu daari Kocc ñoom ñaar ñoo jàpp sama loxo yóbbu ma daaree Kocc présenté ma ti jan Diop yàlla na ko yàlla yërëm loolu mooy sama dugub biir daaree Kocc waaw en quatre vingt mhm. neuf en voilà. Mm-hmm. d'accord euh, euh, ku nekk xam na ne bu njëkk ba aar yombul woon. Mm-hmm. Euh, rawatina nga nekk booy dakaar comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. est-ce que nga xëyoon rek ñëw ne sa waajur yi dama pare pour def théâtre bàyyi naa. jàng non au yomboon na waaw. au départ bi ma daan dem répétition daaw dama daan nëbbatu. parce que bëggoo woon ñu yëg ko. non parce que dañu amoon papa joo xam ne dafa strict woon quoi. ba pare daf ñu yar ci ci farata ak sunna. Euh, booy dem il faut mu xam ci li ngay dem lu mu doon donc boo nee théâtre mu ne ah théâtre yëf yooyu amul avenir yooyu xale la mhm. ma daan dem di nëbbatu mais booba temps festival bi maam yaxi laalo daan organiser di ci dajale troupe théâtrale yi nekk ci Dakar ak li ko wër daan ko def mooy euh, festival boobu ñu daan def affaire culture xale yi mhm. Ibrahima Ndiaye maam yaxalaa la moo ko daan def dama fàtte tur bi. Mhm. bi ñu joué bi ñu demee foofu def fa spectacle mu jàll rajo jour bi ma sam papa njëkkee dégg ci rajo dama wax rek mu ne maa ngi noonu di wax jour boobu la ma libéré may dem nag su ma demul répétition sax mun ma lu tax demoo répétition mhm. ba ni may duggee daaray Kocc su ma demul répétition mun ma lu tax. su ma amul paas mooy yëkkati paas jox ma ma dem waaw donc euh, ma gën cee nag sawar aussi mm-hmm. voilà euh, mu nekk lu am solo comme ni nga ko waxee euh, nga nekkoon ak ñoom mm-hmm. waajur bu nekk day ñaan yàlla doomam tekki mm-hmm. wala dafa bëgg doomam tekki bien sûr tey nga toog ba gisatoo leen muy yaay muy papa yàlla na leen suñu borom xare aljana firdawsi amiin amiin lan moo la gën a manqué ci ñoom ñaar ñëpp ak ndax kenn ku ci euh, nekk dund nga xam ne. bien sûr parce que da ci day nekk si ñoom. waaw waay parce que kenn ku ci nekk dund naa ak ñoom loo xam ne waxuma maa ko dund ak ñoom man kese ak samay grand frère ak petit frère bi ñu am maanaam wéet xam nga gis nga papa yaay wéetal gi ñuy def ci doom. Mhm. leneen mënu ko combler. même boo amee soxna am na loo xam ne. yaay bu la fa nekkatul papa nekkatu fa dalay manqué. Mhm. bu sax sonn donc yooyu daf ma manqué aussi quoi parce que daan naa dem ba ay jamono ma am tolof tolof. ci esprit da ngay ñëw waxtaan ak ñoom. Mhm. si saa si ñu ñu ñu la yoon bi. ba pare daawuñu la bàyyi à chaque fois ñu ngi lay woo di la conseil à chaque fois ñu ngi lay woo di la xamal à chaque fois bu ñu déggee dara nga wax ko dinañ la woo attirer sa attention. yooyu aussi dalay lay manqué. Mhm. parce que jamono léegi nit ñi loo gën a wax lu garaaw loo gën a def lu garaaw mhm. ñu lay gën a encouragé pour ngay gën a dugg ci pax. Mhm. te ñoom euh, dëgg neex yàlla euh, daaw ñu doxee foofu franchement dañ la daan contrôler normal waaw. lan moo la gën a manqué ci sa yaay. Euh, comme li ma wax rek ak moom dañ daan toog di waxtaan lu bari. sa xarit la woon. Euh, sama xarit la woon ak sama yeneen grand frère yi aussi ak sama petit frère suñu xarit la woon mais euh, <laughs> li may kii rek mooy sama xarit yu bari daan ñëw kër ga ñoom dañu yaakaar may ndax da ko jege woon. merci ba pare yu bari moom ko daan defal aussi. yu bari tant que defu ko man du ma su ma mosaan a bëgg dara lekk dara sax dama koy wax jugal nga dem marché boobu sama jabar grand frère yaa nga fa. tey yaay dugg waañ togg parce que lii moo ma neex su ma xëyee bëgg dara ndékkee ko dama koy wax lii laa bëgg ndékkee mu ma ah, wax wax ma toog rek mu ne ma waa d'accord ok nañ def ñu defar tey loolu mënoo ko am sax sa jabar pour pour moo wax la ni la loolu dalay manqué <laughs> mi ngi noonu donc euh, mais sant yàlla quoi mhm. sant bu baax man samay doom laa gën a yërëm ci ñu ñëw fekk ñu fi seen maam bu jigéen man ñoom laa gën a yërëm ka man parce que au moins ñun yar nañ ñu fañ ñu war a yare loolu nag lu ñuy jéem a fexe inculquer suñuy doom ba ñoom it ñu toll foofu voilà. d'accord euh, mu nekk lu am solo ginnaaw nga dugg daaray Kocc ndax yaa ngi fàttaleku pièces yi nga xamante ni bokk nga ci ak ban pièce moo la ci gën a moo la ci gën a marqué. c'est-à-dire bu la bu la gën a marqué ci yi nga fa joué yépp waaw yëpp ma marqué parce que yëpp la Sénégalais yi apprécié muy euh, bi ma fa njëkk a def Lamarana euh, Ibra italien la mhm. laa njëkk a joué personnage yu mooy bi ma dëkkee kër Baay Idi mhm. te ma te ma yeew guddi di dem ci douche bi ma doo dugg donc euh, ma am fa ñetti séquence je pense bien ñetti mhm. séquence la am ci ci ci italien boobu la ñu njëkk lancé Lamarana ci bëtu sénégalais yi mais pièce bi génn nag personnage bi dëgg-dëgg mooy jéegu yoor-yoor boo seet moo ma gën a marqué parce que moo lancé Lamarana moo lancé personnage bi mm-hmm. ba sénégalais yi découvrir ko à cent pour cent mm-hmm. apprécier ko ma ciy sant yàlla bu baax di di di gërëm waa ko ci yëpp di gërëm Cheikh Tidiane Diop parce que aussi. Euh, ñoom ay metteur en scène la woon ay réalisateur ay bindkat buñ la waree bind ci yow pour nga génn pour mu doon sa biddéew bu dem duñ ko sax hésité mhm. amuñu boobu xolu ki ñaan rawatina nag jamono ji voilà donc euh, pièce boobu daal mhm. yëpp marqué na ma mais boobu moo ma gën a marqué parce que dama ko doon seetaan ah. di di xool sama bopp mais daf may dépassé mooy jéegu yor-yor. mooy jéegu yor-yor. d'accord euh, ñu gis na personnage bi euh, ñoom ñoo ko defar daaray kocc. personnage bu ñu ñu bu ñu gisee Lamarana tey. Hmm. ñu bari dañoo fogoon ne man xaw ma woon ne doo doo pël doo doo hmm. man Guinée laa la fogoon. Hmm. ci biir wax tamit dégg naa. paa bi la doon jàngal alxuraan moo nekkoon pël kon yow dema woon ca daara ja pour jàng ki dafa demoon pour éviter ji paa bi. <laughs> waa xam nga. <laughs> Euh, ki ma jàngal alxuraan. waaw Pël la juumuma foofu Pël Fuuta la. <laughs> Paa Modou. Mm, fa laa jàngee alxuraan ak sama frère rek samay copain yi ma yaroon dool mhm. maanaam fa lañ daan dem di jàngi. alxuraan li ñu jot a xam as néew mën ko jullee mën ci jaamu yàlla fa lañ ko jàngee. Mhm. ak leneen li nga xam ne suñu waajur yi aussi def nañ ko ci ñun. donc euh, personnage bi. mbir mi yàlla moo ko def moom moo ko sol parce que Daaray Kocc dama daan toog di imiter pël Fuuta yi di bu ma amoon envie nii draay rek ma jël seen langue di ko def man ba may jàng alxuraan daan naa làkk pël Fuuta normal. parce que da nga dëkkoon ci koñ boo xam ne dafa. non euh, koñ bi ñu dëkk xaar yàlla pël Fuuta yaa ngi foofu donc euh, pas de souci quoi mais xam nga boo boo boo booy xëy fenn chaque jour. Mhm. di fa gont ñuy làkk pël. yeneen xale pël Fuuta nekk fa non mélange la woon nag mhm. parce que moom góor googum ndeysaan yal na ko yàlla yërëm nit ñi dañu amoon confiance ci moom te ñu nekkoon xam nga mag ñu njëkk ña mhm. ute nag léegi dëgg la xam-xam la amoon mhm. daan ko jàngale correctement buñ boo indee doom dañ koy def ni seen doom xam-xam li ñuy def seen doom la ñuy def ci doomu jàmbur boo xoolee doomu jàmbur sax la ñuy pays lu ñuy gën a sonn ko seen doom mm-hmm. waaw donc euh, ñu jàng fa nag xam mu ñu daan làkk ñu di làkk may làkk man tamit. mais comme ni nga daan waxee olof bi nii la ko daan waxee. normal kookan la mais comme ni ngay làkkee olof bi ci pël Fuuta noonu la noonu la doon waxee. Hmm, bon déggoon na olof di wax olof mais kàllaama bi da ci génn. <laughs> kàllaama pël Fuuta bi des fois des fois mu bëggoon wax benn moo olof euh, xaw kii yooyu après bon yàlla daf ma boole woon ak moom nag ñun ñëpp suñu ay xaritam la ñu woon. Mm. mais man dama ko jege woon torop daal. waaw ba ñu fa daan dugg bees ci al arab bi alxuraan bi euh, daara ji maa leen daan jàngal di leen bindal di leen jàngal di leen sax. waaw mm-hmm. dafa ma daan permettre sax. bu bu ma a génn ni naa jàngale wala mu toog de côté. naa jàngale buy génn ne la pour nga jàngale. déedéet euh, <laughs> dafay daf ma naan naa jàngale sama copain yi nga xam ne ñoom laa daan àndal. ku ma ci mësaan a mere jàngale boobu day metti ci yow. ah da nga daan dóore. non ba si. mais yow kenn dóoraloo euh, may jox yar bi kay man ma toog léegi nag sama copain yi ma daan ànd ak sama petit frère bi non bu ñu mësaan am problème nii. Euh. non ki ma amoon problème am na soxlo parce que yow lay damay toog rek woo la ne la kaay nga tari cooli kur léegi nag. dem na ba ñoom aussi dañ ma daan éviter des fois euh, pour bañ a am ak man problème parce que xam nañ ne su ñu amee ak man problème rek bu jë heure jàngale jotee rek. dama leen di woo ñu ñëw toog ku ci bañ man la Pa du nga daal di ñëw toog ma daal di toog nag jël sama temps fas yéene laa jàngal mokkaloo yar gi day daal day métti daal ci ñoom. <laughs> waaw mokkal nga day dal mokkaloo bi day dal. non man kay vengeance lay doon ci man <laughs> occasion lay doon pour ma venger wu. mais boo génnoon comme da su ma <laughs> su wàcc jotee kay patt raay def su wàcc jotee ñibbi jot moom du ma wax dara lu ñu wax waa wax rek xam nga donc euh, mu doon loo xam ne affaire enfance la ñu dund ko mhm. donc euh, copain yooyu laa laay àndal ba léegi. waaw malgré am na ay xarit nag quoi. du ñàkk mais euh, yàlla daf ñu dimbali man copain d'enfance si bàyyiwuma leen. ba suñ doon yàlla tey dinañ ma gëj gis nag des fois. Mhm. xam nga des fois boo boo boo boo màggee am soxna am ay doom dara war la jot bi dootoo ko am. Mhm. dañu gëj gisee mais. ba tey ñoom laa nekkal ñoom nga nekkal voilà euh, mu nekk lu am solo euh, gis nañ ne Lamarana aussi def na lu bari ci euh, pël Fuuta yi parce que jamono jooju ku nekk xam ne ne théâtre dafa doxoon ba nga xam ne rôle bu ci génn rek day day am solo wala nit yi dañ koy bàyyi xel hmm. ndax daan nga am retour ci ñoom ñi nga xam ne ñoo di pël Fuuta yi mosuñ la ci attaqué parfois ci ci ci ci ci rôle bi non parce que hmm, ñun dañu fexe ba lépp lu ñuy jouer ci ñoom mu doon lu suturlu lu rafet ci kàddu ak ci jëfin donc defuñu lenn loo xam ne rekk ci ñoom ku ko seetaan ni ah lii de jaaduwul donc lépp lu may nu ñuy def li ñu daan def ci ñoom ci daaray Kocc ba ma nekkatuma fa ma génn di ko defit toujours damay sàmm benn affaire mooy lan mooy lu suturlu lu rafet ci gis-gis ak ci ay kàddu waaw lépp nag aussi dama ciy soor nit ñi koy seetaan dama ciy sóor fans yi aussi waaw di ci sóor mag ñi di ci soor xale yi di ci sóor góor ñi di ci sóor jigéen ñi waaw donc man jege biñ may jege di ñëw ci man yëpp lu lu lu neex la ay retour yu baax lu rafet la wax ju rafet apprécié d'ailleurs am na ci pël Fuuta yoo xam sax ñoom nee nañ du ma sénégalais damay wax dangay wax ñun la non doo sénégalais pël Fuuta nga bu jógee Guinée ñëw fii xanaa kay siiw nga nga bëgg doon sénégalais mais tu n'es pas sénégalais. mënuñ ko gëm. waaw mënuñ ko gëm <laughs> donc euh, vraiment retour bu positive laa am ci ñoom. d'accord voilà euh, mu nekk lu am solo lan moo waral gëj a gëj a gëj a a gis bi. parce que la ma ko gis. gis bi moom xëy na peut-être producteurs yu bees yi dama leen neexul ñaareel ba benn instant dafa compliqué woon trop. sama côté parce que on est des africains dafa am loo xam ne dafa bokk suñu dund dafa am ñoo xam ne dañ koy jëfandikoo nu nu mu bonee donc euh, maa ngi doon def mais damay gis su ma defee rek jafe-jafe am su ma defee rek mu am jafe-jafe. mu gàllankoor. voilà mu am gàllankoor ma ne nag naa teg affaire bi ci suuf benn instant jël recul mu metti trop nag parce que. li nga xam ne mooy sa gagne-pain si ngay suturloo boo ko jëlee teg ko parce que ay gàllankoor la nga reculer mhm. day metti mhm. mais suñu boroom boo ko bàyyeek sa bopp rek moom mu téel la boppam d'accord ñu taxaw ci jafe-jafe yi tuuti mhm. euh, da nga koy bañ mais lu am la euh, comme ni nga ko waxee da nga daan dugg sax du ma am gàllankoor euh, ñenn ñi ñu ngi wax ne dañ la jekkoon mystiquement ba yaram bi sax xawoon na ci aussi euh, naqari mm-hmm. comme nag xam naa ne moom gars yi boo leen laajee Ameth li ñu lay wax chaque jour rek non yàllaa fi de ñun xëy na xam nañ na yàllaa fi de <laughs> mais xanaa sëriñ bi moo la waxoon ne la noppalul tuuti ki ki la gisaloon ne dañ la jekku mystiquement. non non cest à xam nga àddina ñun dañoom chance yu yaru ci ay biiru mag. Mm-hmm. am seetlu même bu dul nit moo la ko wax sax mais da am seetlu. nit doomu aadama booy dox di dem da ngay am seetlu. nga xam ne gàllankoor nañ booy def dara foo nga am seetlu. Mhm. li nga daan def muy neex nit ñi di ànd ak réussite nit ñi di ko demande bu ñu demee ba nit ñi seen xel nekkatul sax ci yow mhm. te bëgg nañ la nga def dara ñëw wan ko nit mu ni la non je le prends tout de suite mhm. le lendemain mu wax leneen ngay def ci biir def boobu le même jour. nga nekk ci plateau war a tourner jafe-jafe yu taxaw mais ay mag lañ duñu ay xale. Mm-hmm. donc c'est pas la peine que nit di la wax da am jafe-jafe non non mm-hmm. da nga am seetlu rek boo amee seetlu da ngay xam. Mm-hmm. léeg-léeg saa sax kii ñëw ci yow. déplacé wu mooy indi gàllankoor te doo ko xam. Ah, non xam nga mel ni comme sa mel ni comme sa xarit la donc te booboo gën a dangereux te kookoo gën a dangereux ki ñëw jege la di la ree doon sa xarit. buy def doo ko foog booboo gën a dangereux. am nga ci ñenn ñu xam ne xam nga leen après. xam nga man dama doon nit koo xam ne am damay xam bàyyi ci biir. Mm-hmm. des fois nag après laay xam parfois après laay xam ni ndekete mm-hmm. mais lépp rek yàlla moo naan waaw. Mm-hmm. gis nga bu yàlla nangoo dara dal sa kaw fu day daal mais nga jël ko ak euh, gëm rek hmm? toog jàpp sa ñàmbur te xam ni tôt ou tard bu dee sama wërsëg jeexul ci aar ma nga fa ba léegi dinaa ñëwaat te dinaa ko lekk li des mhm. wërsëg rek la ah ku sa wërsëg ku sa wërsëg jeex nga ñibbi mhm. waaw bu fa desee des ci àddina dinaa ko jëlaat. d'accord euh, bu rombee euh, jekku bi nga xam ne comme ni nga ko doon waxee euh, léeg-léeg mën na nekk sax ñu la jege ñoom ñoo lay fakkastal hmm. amoon nga fi tamit jafe-jafe wér-gu-yaram ndax bi nga bi nga bi nga bi nga feebaree gis nañ ñenn ci artistes yi léeg-léeg bu ñu xawee sonn tuuti. Hmm, hmm. dinañu dinañu def lu ci mel ni ket ñenn ñi du ñoom sax ñoo koy def dañ leen koy defal ndax gin bi nga tëddee woon kenn yëgul sa tëdd daan nga gis artistes yi. non man man nag euh, dama préféré dund ci sutura. gisoo kenn ku ñëw jàppale non ku ko yëg ku ko ma jàppale soxla ma yàlla moo fi yor moo yor jaam man gëwma loolu man yarewuñ ma loolu. xam nga lépp baas la base yar mooy doomu aadama dafa am lu ñu lay yaree boo màggee loolu ngay xam loolu ngay dund. dafa am lu ñu lay yaree neneen noonu da ngay comporté woo lu ma tawat tawat kenn du ko xam li may dund fu mu toll nii ku dul samay mbokk yu ma bokkal ndey ak baay ku ma ko ci waxul doo ko xam noonu lañ ma yare noonu lay dundee ak lu mu metti metti nag soxlawuma artistes yi di xam lan lay dund euh, aw ma ca kenn nag xaar ma yàlla aw ma ca kenn problème. mais loolu dina jafe de boroom kër bu tëdd. Euh, kenn yëgul ne feebar na te ku ne xam ne ne dund bi dafa métti. daf maa dundee ak njaboot geeg. daf maa tere de daf maa tere lekk ñàkk lekk. <laughs> nit dalay xamal ba pare wax defal la ba pare wër di ko wax. Mhm. donc ana ana sutura ana sutura da ngay gis sax da ngay commencer di waaj a tourner film dajeeg nit mu ne la waay ma waay tudd ma waaye jàppal ci cinquante mille yi nga tudd ma du ma tudd kenn. ah yooyu am na ci. ah bien sûr du ma tudd kenn man je préfère tudd xarit bu ma dul defal may ko dédicace ci sama film que ku may defal émission nag dinaa gërëm ñi ma daan defal parce que nag ku gërëmul parce que am ku la defal aussi gërëm ko sant la sant ko gërëm nga yàlla sant nga yàlla. Mhm. mais ci biir pièce. je préfère tey Mouhamed mii xam na sama xarit la yaakaaruma ci moom dërëm ma may ko dédicace tooñ ko xas ko saboote ko loolu dara mais boo ma ko defee ni ma tudd ma duma la tudd parce que pièce bi loolu taxu ko jóg benn bu dee dañ ko teg ci cadre professionnalisme rek buñ la joxee jaloog normal loolu taxu ko jóg yaa ngi dégg mm. leneen li ci des nag mooy comme li ma wax rek sutura bi dafa amatul man bala may gën a kontaan defal nit mu toog ci télévision bi di ma tudd looloo fi nekk fu mu toll nii mm-hmm. mbootaay artistes yi am nañ ko de mais nañ ko waroon a sosee dëgg créer ko liggéeyee ko dëgg moom la ñu liggéey moom la ñu bàyyi te ñaata artistes ñoo fi feebar est-ce que dégg nga ñu ne association tel comédien jël na nangami million yóbbu na artiste bi faji ko ñeneen a koy def mhm. te lu média bokk buñ lay dimbali te yàlla rek a tax lu luñ ci ut caméra ak ak ak journaliste jaru ko. yàlla rek a tax yi nga xamante ne dañuy dañuy dañuy dañuy wéradi dinañu bokk ci mbootaay yooyu. gis nga wéradi fii lañ ko fekk. Mhm. feebar fii lañ ko fekk. du dëgg euh, damay wax souvent ma ne. enseignant bi bi bravé taw naaj dem zone de tension jël risque di jàngal xale yi di former ay intellectuel di former ay borom bopp pour ëllëg ñu mën a yor réew mi waa kooku bokkul Sénégal bu feebaree lu waruñu ko faj. et pourtant am na ko ci feebar tëdd ci këram suturaal boppam njabootam suturaal ko kenn yëgu ko pourquoi ñun bu ñu feebaree mu doon coow. pour pourquoi artiste comédien bu tawatee rek mu doon riir. mais yéen a siiw nag. non non siiw am na mais boo siiwalul sa bopp kenn du ko xam su ma feebaroon tey ba tëdd boo ma woowee ni ma interview du ma la faale. doo ma sa ñëw sama kër. tu n'oseras jamais venir avec un caméra chez moi pour me filmer lu ko àdduna doy yàllaa yor jàmm. li ngay xëy di ko di ko wërsëgee yàlla moo la koy jox te xamoo fu mu ko te xamoo kañ la ko régler pour ñu jox la ko ci loxo ki muy jaar foog mu jaar fa mu jox la ko nga war a mën a am loo dundee bu faju jotee suñu borom mooy xéewale ki la war a faj may la ko wala ki la ki daagu ba yëg sa feebar faj la te am sutura am na ñu bari ñu am yor fii alal di defal ay doomu aadama te kenn xamu ko di faj ay doomu aadama ñi ñiy riir sax ñu naan diw moo faj diw li ñooñu di faje ëpp ak li ñooñu di dimbali te xamoo leen te ñu ngi lay romb kooku day def te yàlla tax man nag je préfère vivre ci sutura lu ma am bokk samay njaboot sama famille lu ma ñàkkit ma xam ni ñoom it ñoom it ñoo xam ne lii laa ñàkk lii aw ma lii loolu laay loolu si loolu lañ ma yar ci loolu laay dund. d'accord euh, kon daal artistes yi fi mu nekk nii amu leen mbootaay boo xam ne tey ku feebar war nañ la jàppale. ah am na ma mais nekkuma arco xaw ma lu ñuy lu ñuy. dëgg neex yaa lu ma loolu lañ ci wax tooñ. d'accord waaw euh, daan nañ gis tamit léeg-léeg daan ngeen amal ay festival ñu dem ba ay jamono mel ni gisatuñu ko. wala xëy na dafa dafa dafa wàññeeku. boobu aussi xaw ma ci dara wool gars yi ko doon organisé nga laaj leen <laughs> man daaw ma dem ci festival yi daaw ma dem ci festival yi. <laughs> parce que aussi non mais nag mais nag ñu kon looloo tax ñu bari naan ñu bari naan lamaraana dafa naqari deret. non naqadi naqadi ma deret xam nga. tudd nga ma Dakar bés tuuti mu ñëw nii micro bi. xam nga waaw. dama lay wax lii sénégalais boo amee ful la am looy bañ ñeme dëgg ñu ne dafa réew dafa naqadi deret dafa compliqué. Mhm. ñett yi lañ lay waxal. Euh, du ma dem ci lu ma xamul lan la duma ci dem dañoo organiser festival Kaolack rek wala Saint-Louis artistes yi ñëw leen oto baa ngi taxaw ñu dugal la ci dem ci ban condition ngay demee yóbbu ay artistes ci otel jël dix wala neuf artistes dugal sol leen ci chambre hmm? wala ay six ay magum jëmm sol leen ci ay chambre jël ay mat laa teg ci suuf lekk gi du doy nga pare ñibbi ñu lay jox 2000 francs transport <laughs> waaw mais nañu waxante dëgg nag man de doxuma ci loolu doxuma ci loolu. transport 2000 la woon. xam nga maanaam boo déggee mooy délégation bi dem bu ñu paree wàcc ku ñu wàccee jox la 2000 nga jël taxi ñibbi yére yi nga yóbbu mu tilim année bi nga ko jënde man su may dem ci dara. sama njaboot di ci teg bët su ma wàññee ko war naa faj seen soxla mhm. ñun ñoo xaw a ñàkk fayda tuuti nag dañoo bëgg dem bëgg mbooloo fuñ daje pour ñu naan diwa nga ne man doxuma ci loolu bu dee loolu moo tax ñu ne dama tàng xol dama tàng xol ba ilaa yow mi diin lu may dem damay xam ci lu may dem lu mu doon bu dee damay maye ma maye bu dee dañ may fay ñu fay ma bu dee dañ may jox participation ñu jox ma ko ma xam li ñu may jox lu mu doon man de lii laa wax. waaw waaw lii de laa wax man <laughs> moo tax doo ma gis ci benn festival. dëgg neex yàlla na. d'accord mag laa te dootuma xale quoi. mais bi Ameth ba tey dañ koy dëggal parce que gis nañ que ni euh, euh, euh, père amoo relation ak artistes yi. même budul festival maanaam ban relation. ba du ñu du ñu du ñu du ñu yombul ñu dem ngénte artiste wala ñu dem dëj yàlla na fi gëj wala ñu dem takk ba seen lamaraana ñëw na ci ci ci artistes yi. yëg lu ma yëg laay dem. <laughs> artiste baa ngi takk jabar yëguma ko lu ma fay wut maa ngi ko yëgee ci mbedd wala ci média lan laa fay def artiste baa ngi ngénte ma ma ma dugg internet di di diw day ngénte suba lu sama yoon dëj damay jaale damay dem de mais nañu bëgg ma demee laa demewul wanewuma nooy demee mais dinaa dem discrètement jaale li ma war a jaale su ma amee lu ma teg ca layu ba teg ko su ma amul ma jaale ñaanal ki ki fi jóge génn ñibbi ah waa mais lu lu ñu bëgg ma wàcc sa anglu koñ ba naan maa ngi nii damaa ñëw jaale si wala baay ba mu ba ba ba nit ñi fees dell digg bëccëg nga wàcc taxi fee dox di ñëw ñu naan diwa ngi nee xaw ma loolu de su may dem ci xew daal dinaa dem ci xew xew yi moo xew bu ma yëg artiste bi yëgal ma ko dëgg na yàlla ma am jot dinaa sol sama dàll sol li ma yàlla may ci yére ma dem ziyaar leen dem sama yoon mm-hmm. nii da laay demee xew te duma ko wàcc ba kii ilaa yow mi diin yow daal nëbbatu bi daal moo la gënal discrètement la du nëbbatu mënoo nëbbatu ku yàlla may bay rek nga siiw mënoo nëbbatu mais mi ngi fi ba tey gars yi ñu ngi naan la ngi tey. lu tax nga invi lu tax nga invité ma lu tax nga invité ma. waaw da nga toj nag. non du question yaa ngi tabax sax. non du non du question question toj parce que peut-être que le public a réclamé pourquoi vous prenez pas la Madana mm-hmm. n'est-ce pas. Mm-hmm. kon kay macha allah. Euh, lan moo tax duñ la gis ci série waaw mooy li ma wax sànq xëy na producteur yi ak euh, réalisateurs yi def série bees ñoo ñoo ma bëggul ñoo bëggul sama personnage mais nag mais nag mais nag benn côté tam aussi foofu tamit mm, vraiment am na nag suñu nijaay jii moom dafa doy waat am na la woo jox la contrat ne la kaa ñu liggéey nga nga dem yóbbu ko sa avocat ñun ay nit ñu ñuul lañ dañuy daw <laughs> waa léegi ma liggéey pendant six mois huit mois ñu fay ma trois cent mille perte ma pendant un an cinq ans quatre ans yaa ngi ci télé bi di feeñ nga feebar amoo loo fajoo war ngaa rusa toog sax di ko wax média pour ñu dimbali la siri lañu ñu wax gis nga système bi nañ ko teg ci professionnalisme mm-hmm. nañu fay artiste lu ko jar ñu liggéey bi li ma fi naa ko dawuma pour génn hmm. dawuma pour naan lamaraanaa ngi ne non non damay liggéey ñiy ngi dégg mm-hmm. lu ko jar ñu liggéey boo feebaree mën faj sa bopp bu sa doom feebaree nga mën ko faj waaye nekk ci tele bi 4 ans 5 ans di génn di toj ñu ne diw génne nañ ko maris ba mu luy woon mënul ta fay dama lay laaj ndax na. doy na waar. waaw déedéet damaa doy waar man. waa léegi dama li nga wax noonu doy na waar. contrat dafa am ay clause yu ci nekk. Mhm. boo gëmmee signé ko yaa ngi dugal sa bopp. am na benn société du ma tudd tur. bu bëggoon samay image pour jàllale ko ci teleem bëgg ay sketch yu ma ko defal le contrat qu'il m'avait donné est-ce que xam nga su ma ko signé woon dinaa toog cinq ans du ma liggéey ak beneen producteur mm-hmm. mais bi ma liiree contrat bi gisuma ci loolu sama avocat ko jox moom ko wax ni ma lii bés boo ko signé tu foutu mm-hmm. parce que condition bi ñu ci def baaxul ñaareel ba juróomi at yi ñu def mm-hmm. dootoo liggéey kenn te fañ lay faye est-ce que am nga contrôle boobu waaw ni ma nag proposé leen lii buñ ko amee nga liggéey buñ ko amul nga bàyyi leen ma proposé leen mm-hmm. ñu wax leneen ma tegal leen ko fa bu jekk dem sama yoon daf maa tere dund kon daal producteurs yi ñu ci bari jàppalewuñu artistes yi artiste bu ko nangu man boo ñëwee toog li ma leen dafa nit woo ma dama war a def série man ko waa ñaata man ko déet ani scénario bi parce que li may def aussi dama koy xam pourquoi ñu ne duñ joxe scénario <laughs> mais ti prends un acteur tu dois lui donner le scénario mu lire ko di début à la fin pour mën a dugg ci biir histoire bi pour mën a xam son personnage ak yeneen personnage pour mën a xam le film parle de quoi mais prétexte bi ñuy joxe loolu du prétexte parce que nit ki boo waxee loo xamoo dara cinéma bi tey même les technicien on les donne le le scénario pour ñoom ñu xam seen liggéey nuñ ko mën a defee ci biir plateau bi rawatina les acteurs man de lii laay laaj pour xam li may def lu mu doon su ma ko xamee ba pare ma sentir sama bopp boobaa ñu toog waxaale nag ñu teg contrat bi nag contrat bi dama ci am lu ma ciy gis naan lay noonoo defee nii dindil lii arrangé wu ma parce que producteur bi la seet si nga war a def tournage li ko arrangé lay bind ci contrat mhm. pourquoi yow artiste bi yow duñ la may jox droit jox respect nga war a liir contrat bi ne man tamit lii arrangé wu ma. mais ko jël nañ ko jël dem ma des ak yàlla. terewul <laughs> sama tur est-ce que daa fay. ñaata at génnuma ci bi. bari na bi nga toogee boobaa ak léegi ñaata at la. xamuma ko sax je sais pas def ay kii daal laa fi def doomi gaynde laa fi def récemment. mais à part doomu gaynde bi toog nga fi. ay non à part avant doomu gaynde koor laa daan def ma arrêté koor donc toog naa fi defuma dara est-ce que bi tamit lu tax nga bàyyi ko parce que bi. mooy li ma wax gàllankoor rek. gàllankoor yi jafe-jafe yi tëb def ba pare après gàllankoor mieux vaut. teg ko ci suuf quoi ba pare daf bari woon coow. doomi gaynde le producteur bi ma seet dañu wax mu nangul ma ñu wax mu ne lii ma nangul ko ma ne ko non non arrangé wu ma lii la ñu accepté waxtaan mu jox ma sama cër ma jox ko cëram te li moo wax ak man lépp da ko respecté ñu liggéey. mu indi mu indi ma ci beneen dimension maanaam génne Ibrahima Mbodj ma joué personnage boobu. nit ñi xam ne man du comédie rek laa mën. d'accord foofu laa jëm si woon ak yow sax léeg-léeg est-ce que jël benn rôle rek euh, di ko jouer du indi gàllankoor ci seen i. waaw mais euh, def naa lamaraan nit ñi bëgg nañ ko def naa doomi gaynde pas crèche nit ñi bëgg nañ <laughs> mais est-ce que yéexoo ci génn yéexoo génn. yéexut lu war a bu app bi jotee rek day génn. du ma forcer kenn ni ma jël ma par force sama sa film damay jouer. non non ma ne est-ce que yéexoo génn ci personnage boo personage u Lamarana bi Pël Fuuta bi. non yéexuma ci génn nit ñi gis nañ ñaari personnage léegi ku soxla fii maa ngi taxaw ku soxla fee maa ngi taxaw. yaa ngi taxaw jeex na. d'accord euh, mu nekk lu am solo ba tey di leen fàttali rek euh, la Madana jàllo moom la ñu dalal tey fas yéene waxtaan ak euh, moom naka nga gisee aar bi tey série yi nga xam ne yaa ngi koy seetaan bu ñu xoolee théâtre daaree koccu théâtre tey wute na mais ñenn ñi dañuy wax ne xëy na jamono moom moo dox. moo tax faaw ñuy ñii di dox ànd ak moom. téléfilm. waaw téléfilm yi. théâtre sur scène la bu dee télé téléfilm la. waaw jamono moo soppee c'est-à-dire que nu mu soppeekoo. non parce que xam nga bu njëkk ni ngeen doon joué kon papa yaay doom. dëkkandoo ak yooyu. lan mooy suñu vie ñun. ñun suñu vie frère ak sœur. ah papa yaay doom da ngeen ko ci génne da ngeen ci génne papa yaay doom. non mais ñu xaw ko changé def ko frère ak sœur. comme comme comme jamono dafa soppeeku mais doo xam lan mooy lan mooy coppateeku bi. waaw donc xëy na ci solin bi ci waxin bi. Hmm. gis nga li nit ñi daan sol bu njëkk moom la ñu delloo si moom la gars yi di def mode mode bi fu mu toll nii solin bu njëkk ba la gars yi delloo si amul lenn lu ñu fi indi lu bees. un film ça ne passe pas comme ça tu as une l'idée tu la nga def ko scénario scénario bi mooy génne décor yi génne personnage génne histoire bi wax histoire ci ba histoire boobu la ñuy basé pour fair un film personage foofu la ñuy basé seen solin foofu la ñuy basé seen dialogue pour mu doon histoire bu ñu mën a suivre xaw ma nag léegi ñoom naka la ñuy liggéey xëy na peut-être nit ki personnage bi mooy imposer lu mu war a wax wala lu mu war a sol mais buñ ko tegee ci cadre boobu rek ah man maay dugg ci personnage biñ ma jox dugg ci film bi. mais du film bi mooy ñëw ci man. ñu bari dañuy ŋàññi ne waxin bi ak solin bi. Euh, waaw baax na man euh, xam nga dañ nekk ci dëkk boo xam ne loo wax ñoo ne danga nga soxor tey su ma ci waxee dañ naan dañ maa ngi gis damaa xeewi <laughs> amul problème euh, nit ñi ñooy consommer. Mhm. peuple bi mooy consommer ñun ci lañ bokk. xëy nag bu ñu nekkee entre artistes techniquement di ci waxtaan di ci xool yenn erreur yi man toujours damay seetaan parce que pour gis ci erreur bu ma mën a man rectifier ëllëg du dëgg mm-hmm. bañ fi génnee ña ñoo leen tàcc du peuple bi mm-hmm. ñoo ni yéen la ñee dañoo xewi loolu la ñuy wax sax même des fois yenn booy acteurs yi loolu la ñuy wax mel yenn réalisateurs yi dañ ñaan ñun dañoo yi dañoo yàgg. Ah, dañ leen koy dañ koy wax dañ koy wax. bon ñu ne ok c'est bon mais ñoom ñoo dem ba ba di ñu woowaat di ñu dugal si film yi gisoo ci film yi ay anciens acteurs et pour mm-hmm. pourquoi ñu leen di jël di leen fay dugal parce que ils ont besoin de de qualité ils ont besoin de jeu d'acteur c'est très important yaa may dégg mm-hmm. li ci des nag man du ma critiquer kenn du ma wax kenn lu muy def baaxul peuple bi consommé ñoom nañu xool li ñuy consommer lan la ba xam ndax baax na wala baaxul. wala baaxul ah. d'accord euh, ma dégg sa wax nga ne aar bi boo ci nekkee gëm sa bopp gëm yàlla dangay dellu ginnaaw. <laughs> waxuma damay da ngay dellu ginnaaw de waxuma loolu de euh, dama ne. Hmm. boo ñemee dëgg. boo ñemee dëgg waaw. am fulla. am fulla. xam looy bañ. Mhm. dañ la naan danga complike compliqué da nga soof loolu lañ lay wax. kenn du la jël. ah ah, ah man de kenn jëluma maa ngi toog jàpp sama. ñaar mooy dellu ginnaaw bi rek. waa déet delluwuma ginnaaw parce que déjà. mais mais yaa ngi toogoon fi nga toll ba tey. si fan. gëj nañ la gis. ci naka. ci liggéey bi. fi ma toll cest à fan laa toll woon. non ci aar bi comme tey série yu bees yi yenn programme yu bees waaw wax nga ma série yu bees programme yu bees producteur bu la bëggut jël da ngay dem ni ko jël par force. réalisateur bu la gisul ci filmam dangay dem ni ko jël par force émission télé wala rajo bu ñu la invité woo da ngay taxaw ca buntu télé ba naan invité leen ma pourquoi doon ma invité man mosuma woo animateur nii animatrice naan koy invité ma sa émission mm-hmm. nañ taxaw nag wax j'ai jamais appelé qui que ce soit un homme de média bu mu mënti doon nag je ne l'ai jamais appelé pour wax la sa émission bi neex na lu tax invité woon ci ma feeñ man feeñ du ma tax a daw li may feeñ feeñ naa ko fa ma nekk ca succès ci xolu sénégalais yi maa nga fa tey la ma sénégalais yi gën a bëgg ndax maa ngi def ay interview pourquoi <laughs> ñaata toppoo ma un an pour interview bi bu ko dagg nag dégg na génn ah non génn <laughs> ba sonn est que matul un an ko voilà chaque jour yaa ngi rek ci àll bi waa jeex na <laughs> d'accord bu la yàlla mayee loolu fu lay daw bay daanu mhm. waxuma yàlla ba ma yàlla di bind neewu ma ko def ma artiste moo ma def artiste mm-hmm. dugal ma ci xolu nit ñi ma koy sante nag di sant doomu aadama yi accepté bëgg ma ci personnage bi ma joué mm-hmm. ma leen sant sénégalais yi ñu nekk fii ak bitim réew maa nga fa ba léegi de ban conseil ngay jox euh, artistes yu ndaw yi. Eh. ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo xew comme ni nga ko waxee yéen da ngeen eh. xew koo ci conseil mun la da mun la dafa soxor. ah mais tamit. xam nga parce que ay ay ay mag wax nañ daal li ma wax dégg nañ ko. falaa mën a yem. li ma leen di wax rek mooy. boo conseillé wul aussi ñu ne xoolal dafa soxor. <laughs> boo conseillé. suñu réew mi dafa compliqué dafa compliqué. <laughs> <laughs> mais nag parfois dag leen di dal parce que dégg naa nga ne ñu ci bari dañoo bëgg siiw. musuma ko wax fen fan laa ko wax ci ban vidéo xam nga li gën a metti les producteurs mm-hmm. yi créent des stars ki n'ont pas de formation. voilà nii nga ko waxee. merci. nga ne producteur dañoo bëgg lu yomb ñenn ñi dañu bëgg a siiw te or que jànguñu li ñu li ñu. gis nga. man soo ma jëlee ci koñ bi ma daan taxaw ci angle bi su ma xëyee régler sama kaasu kafe télévision dafa garaaw mm-hmm. ma xëy nga dugal ma ci film ma siiw te créé li li ci ginnaaw siiw mooy lan mooy yar xam yaay kan xam ne li nga siiw du dara. Mm-hmm. Euh, day compliqué ci ki siiw da ngay def nit ki star dugal gëmloo ko ni ko star nga seen kër gi nga dëkk kër famille ba nga dëkk Grand Yoff génn fa parce que dépassé nga niveau de vie boobu demal luwe ji appartement te fayoo ko loolu yaa ngi koy dugal ci problème mhm. man ba ma génnee ba suñ jonn yàlla tey suñu kër famille laa dëkk xaar yàlla sama kër papa fa laa nekk ba léegi wax ma nag du ma fa génn bis moo yàlla mayee kër nag terrain bi ma am ma tabax ko yóbbu fa sama njaboot dinaa tox waaye da ba ma siyee ba suñ jox na yàlla tey nii musuma luy appartement musuma luy benn néeg sax parce que ba ma ba ma ba may def li may def succès bi foofu la ma fekk kër famille mm-hmm. falaa toog nag ànd ak samay famille di dund li may dund te nit boo beddee koo dem rek dootuñu la contrôler mhm. moo tax toj toj yu bari ñenn ñi di ci dugg parce que xaritu bee yi nga am dañ lay jaay lan mooy toj toj yi man kay xawma ko yéena ngi ci média xam ngeen ko yéena ngi koy gis ci internet bi man sama yoon nekku ci koo ci gëj a gis mu génn tele mi ngi ci internet bi di def ay photo di def ay vidéo di kii man dag maa gis ci internet bi merci beaucoup dara jaraluma ko sama àddina sama téléphone amul sax sinap xaw ma ko mënuma ko sama photo boo ko gisee nit a ko jël dugal ko pour rendre ma hommage mosoo gis sama jabar xamoo ko samay doom xamoo xamoo loolu laay dund mhm. moo ma jikk waaw mais kenn xëy kenn ku nekk nag ak ak ak ak tolluwaay bi tolluwaay bi cest euh, boo amee buzz kay comme ni nga ko waxee am succès ah. waaw mais par exemple succès da nga dañ doon wax ne aar fayul mais léegi aar day fay parce que xa artistes yi léegi bu doon fay artistes yi dinañ génn ci internet bi di casse contrat bu ñu leen jëlee ne dañ koy nañ ko xoolaat <laughs> ay yow nag ña ñoo génn fan yi ci internet bi di kaas mais xam nga bu njëkk mën nañu wax ne tey nan na bul ne mais nan ñooy génn di kaas bu doon fay dinañ génn di kaas naan seen contrat baaxul yaa ngi ci internet bi xam nga ko Dakar Buzz jël ngeen ci ay artistes ba toll ñu kaas. bu aadoon fay danañ ngeen di kaas naan contrat bi ñu leen baaxul ñu ngi lay xaas seen kaw. non aar moom léegi moom mu ngi fay parce que gars yi oto yu rafet yi ñuy dawal ak xaalis bi ñu ci am moom macha allah. mi ngi fay kay macha allah. <laughs> ba pare gis nañ ko léegi bu njëkk mën nga def benn benn benn benn série wala dara benn télé la daan daw. léegi gis nañu télé yi nu ñu yokkoo am na bëgguñu def publicité télé yee ngi gën a yokku. Hmm. ba nga xamante ni bokkuñu sax ci réew mii dañuy jaayaat foofu série est-ce que ñu ngi koy fay artistes yi dans le contrat qu'ils ont signé est-ce que loolu am na ci man de lii laay wax norme bu laay teg ñu ne dama soof tey bu ma amee contrat série war a daw télé Sénégal ñu fay ma loolu buñ ko waree jaay sur le plan international yow artiste bi dañ la war a fayaat internet bi bu ci jàllee dañ la war a fay lii de laay wax man te ñoom producteurs yi ak réalisateurs yi xam nañ loolooy logique mais boo ko waxee ñun la taxawel ne bëgguñu ko muus bëgguñu ko xam ba ci publicité yi ñuy def ci biir séquence yi nga war a yor un produit yow artiste bi loolu dafa war a yokk sa cachet parce que tu fais de la publicité mm-hmm. alors bëgguñu ko xam nag ku ñàkk xam la wër moo tax ñu jëli ñu bees ñi jëli mannequin yi booy yi nekk ci mbedd mi xamuñu dara nañu génn télévision rek booy bu ñu demee ba ca biir nag la ñuy doog a comprendre situation yooyu ëlbatiku fekk c'est trop tard tu as signé déjà un contrat. tu fais un film mu génn benn chaîne du tudd benn chaine Sénégal ñu fay la. ne sa cachet lii la nga ne ok mais ci biir contrat boobu def nañ ci clause boo xam ni def ne le film sera vendu à toutes les chaînes in toutes les chaines de télévision à toute chaîne de télévision le film peut peut être vendu à toute chaîne de télévision. mën naa dem fu mën naa dem. ils n'ont pas précisé. Mhm. man loolu boo ma ko joxee man la déet préciser yan chaîne nga koy jaay yan chaîne lay daw bu dee national fay nga ma d'accord international tu me payes internet tu dois me payer ñoom xam nañ ko na yow nga bëgg génn rek signé ñu xëy jaay ko A plus nit yedd la ne la ah, dañ la waroon a fay nga daw signé nga ko yaatooñ sa bopp man de lii laay def dëgg na yàlla bu dee dama compliquer nag ci lii bëgg dara parce que kiy def day dafa bëgg dara mhm. ku ci produire ñaari série ñett un an deux ans tabax immeuble yor oto bu doy waar artiste bi gën di jël taxi ñu koy génn mariste parce que fayul luyaas moom mu ci am entrée chaque mois wala chaque année iñaane nañ la sax yee ci nga dem SODAV bindu fa am fa carte droit voisin nga war koo mën a encaisser duñ la sax yee man de lii laa wër ba xam ko defal ko sama bopp toog nag di xaar waxuma ñu fay ma li ñuy am munul nekk munuma séddoog producteur bi munta nekk producteur li muy am mun du munuma ko am munta nekk me nañ ma jox sama àq normal lii laa laaj